itam bëgg a fësal rek def ñu naa ne ko lancé na réunion def naa ne waxtaan ak secteur am waxtaan ak commune am par rapport ak parrainage bon je crois que li ñu dotee Guédiawaye ci wàllu pourcentage bi ñëpp xam nañ ko fi ñu toll nii li ñu jot a def rek pare na nag géejawaay ñaari li ñu jot a def rek dèjà pare na kon euh, loolu lépp bon su amee aussi dañ koy remercier tous les responsables par zone nu muy suuf su weer Diono Sène Yaakaar Ndiri amoo 456 Daaru Naïm Angle Mousse waaw def naa yaa ngi zone yaa ngi aussi hors zone waaw nga xam ne ñoo def nañ liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la pourcentage bi nga xam ne moo gën a ëpp fi mu nekk nii mooy que suuf si wax moo ko def nii quatre cent cinq quatre cent dix waaye euh, li ci des daaru cent quatre vingt ñi ay deux cent quarante deux cent quarante deux cent vingt kon pare na gi euh, loolu lépp nag boo amee bon la maire taxawaay nañ taxawaay boo ne suñu kilifa boo weesoo responsable des zones yi ak responsable bi fi nekk bi nga xam ne mobilisé nañu derrière la mer wax dëgg yàlla mu dooleel ñu bàyyi biroom ñëw ba fii ci permanence bi nga xam ne permanence u APR la nga xam ne ñoo jiite coalition Benno Bokk Yaakaar moom muy coordinateur u Benno Bokk Yaakaar kon man su ma nekkee coordinateur APR aussi top ci ginnaawam ma ma war actuellement actuellement il est le patron fii ba campagne bi di jeex parce que c'est la Benno Bokk Yaakaar nekkatul affaire waaw loolu moo tax bon ñu jël ko teg ko suñu kanam ah, jiital ko wax dëgg yàlla di échanger ak moom lu bare bari aussi diñu laaj suñu xalaat ci ni mbir mi doxee daanaka dafa ñëw rek bu toog mottali ah, surveiller affaire yi mais bu doon këram aussi ñun ay doomam lañu ay jarbaat lañu ay soxnaam ñoo nekk ay léppam ñu defal liggéey bi fekk ko bëgg jox ko jébbal ko ko mu def signature am tamit ah, lu mu ci def rek ñun ko tax a mu ñëw affaire ba léegi baissé ah, wu les bras muy xaalisam muy alalam muy léppam ñu koy def chaque jour ngeen gis militant bu bi def naa ne fekk fekki fan di ngeen gis njaareem loo xam ne mos leen ko gis waaw loolu lépp nag grâce à moo tax waaw loolu lépp am def naa ne loolu laa amoon wax euh, léegi boo bëggoon xam ndax tey euh, seen ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci population yi ndax bu ñu defee foofu am ay difficulté pour nit ñi comprendre parrainage bi non du ñu am difficulté parce que population bi aussi suivre nañu xam nga Sénégal yi dañu bëgg dañu sopp waaw justement loo xam ne aussi affaire justice daf ci bokk nga xam ne boo paree ne ñaari nit lu na la ci fekk

moo tax vraiment bon ñu bëgguñu tricher quoi bëgguñu jël benn boo xam ne dafa pare na ba pare ñëwaat ba ne léegi nag ban appel ngay def tey ci élection yi nga xam ne mi ngi ñëw ñëpp nekk ay doomi géejawaay maam pour paix am ak stabilité am ku war ku nekk nga war a votel votel may wax ci loolu. waaw xam nga géejawaay moom particulièrement euh, Njaaréem c'est la famille yoo xam nga ci dara defe naa ne dara mosoo fi um ñun fii mosoo fi dégg histoire mosoo dégg dara parce que fii famille la. te def naa ne loolu aussi département ñu koy commencé roy ci njaareem waaw defe naa ne bon dem ci élection ci jàmm ah, ku nekk jokk euh, dam sànni sa carte ki nga xam ne moom nga bëgg mu falu après ñibbi sa kër wala aussi nga sauvegarder sa sa électorat ba xam ne bu heure ba jotee bu ñu joxee résultat vraiment victoire bi na suñu côté waaw ah, loolu daal moom laay lancé appel population bi pour ñu xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bay muy génn njaareem toujours depuis bon que je majeur maa ngi ci bi mais mos ko fi dégg coow parce famille la waaw avec la maire aussi mu ñëw jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ak euh, ni mu nekkee Déthié Seck je crois dina gën a piraat encore que jàmm bi gën a gën a sax aussi